yaa rabbi dama bëgg a julli toog naa bisu lëmb julliwuma xale bi loolu lay jooy loolu lay wax la moo tax julliwul ndeysaan nettu la amoon si tremblement bi moo tax mu toog bisu lëmb julliwul loolu la nekk di jooy nii instant bii nii imagine leen xale bu ndaw bii te pourtant kii xale bu ndaw la ndax naar yi ku leen xam xam na ne ñoom dañaa gaaw a màgg macha allah kon kii xale bu ndaw a ndaw la muy jooy ndax julliwul ndax julliwul ñaata yoon benn bis te la moo ko waral mooy ne tremblement bi moom moo ko yóbbee léegi yow ndax yow di nga julli chaque jour waaw sa doom ndax dafay julli chaque jour wala da ngeen di sàgganee julli xoolal ma xale bi waaw nga yaakaar nag yow ak kii di ngeen tolloo wàccuwaay bis penc fa yàlla subhanahu wa taala mënul nekk ndaxte ku sàgganee julli ak koo xam ne xale bu ndaw boo xam ne dafay jooy ndax julliwul benn bis ñooñu mënuñoo bokk kon nañu ragal suñu borom subhanahu wa taala te delluwaat si yàlla subhanahu wa taala xam ne julli farata la si bépp jullit loolu nekk loo xam ne a bàyyi xel